ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi bokk di nafaraat di bokk di fàttalikuwaat ci xew-xew yi nga xam ne mooy xew te mu am loo xam ne war nañ ko ciy jëlee mu mel ni nag àdduna si boo ko toppee ak yëngutoom ak i bànneex ak ak i bànneex ak li muy xiirtal yu bari boo ko toppee rek di wéy dana mel ni am na loo xam ne suñ borom da koo bindaaleeg doomu aadama te léeg-léeg doomu aadama du ko bàyyi xel ndax doomu aadama nañ xam ne jëmm la ak ruu ruu nag am na lu muy dunde jëmm am na lu muy dunde léeg-léeg nag dafay mel ni jëmm ji dañuy yóbbu ba ñu fàttee li nga xam ne moo war a dundal ruu ñu war di ko fàttaliku nag ba di ko bàyyi xel loolu nag suñ borom moo nu njëkk woon ne nañuy bàyyi ne bàyyi xel ne kat yoruñ jëmm képp waaye yër nañ jëmm ak ruu te ruu googee war nañ koy bàyyi xel loola nag li ñu koy wan mooy nañ xool ne léeg-léeg da ngay da ngay dox ci àdduna di topp say soxla di wut ay loo xam ne mooy say banneex ak li nga xam ne moom la àdduna di xiir waaye dangay toog ñu ne la julli war na mu mel ni julli diggante boobee nga koy def am na yoo xam ne war nga koo fàtti am na yoo xam ne war sa xel wulatu ca nekk lu dul suñu borom ak dundal ak dund lu baax loola nag moo tax julli yi juróom mu mel ni suñu borom da koo tëral ngir bëgg doomu aadama bu bëggee mab ci bis bi ba nga xam ne li koy mam loo mooy àdduna ji képp ak banneex yi ak yi nga xam ne moo koy xiir ci àdduna suñ borom na koy dellu siwaat ne ko dellu siwaatal ci man dellu siwaat ko ci bis bi juróomu yoon mu mel ni loolu la koy delloowaat ci de xamal ko ne ko sa sa jëmm jii kat wala jëw doomu aadama ji kat xamal ne yoroo jëmm képp ba moom rek nga war a bàyyi xel waaye ni nga war a bàyyee xel sa jëmm noonu nga war a bàyyee xel itam sa ruux gi nga xam ne moo ànd ak yow mu mel ni kon waxtu yi juróom dañuy fàttaliwaat ne lu àdduna rëy rëy ak lu ci bànneex yi bari bari ak yi ñu ci xiirtal ñu jëm ci li mu bari bari itam nañu xam ne am na waxtu yoo xam ne war nañoo delluwaat ci suñu borom war nañoo dellu si waat xam ne ànd nañoo ruuta ruugoogee war nañ koo dundal mu mel ni waxtu yi juróom kon dafa mel ni buñ ko seetloo loolu la loolu la ñuy tekkil waaye dafa mel ni itam ci gis-gis boobu itam ci lañ gisee ne bis bii nga xam ne moom la ñu taxawaloon te liñ ci ko taxawale woon mooy bisub xasida yi Sëriñ Tuubaa yi mel ni xasida yooyee liñ ci jublu bañ koy taxawal mooy ñun mu nekk loo xam ne dañuy waar ci ñu gën a delluwaat ci gën a jàpp ci suñuy pas-pas xam ne àdduna doonut loo xam ne addu ay bànneexe képp la ak i ak ak luy neexal ak dund waaye am na leneen loo xam ne moo ko ëpp solo te loola mooy pas-pas ak am ak wóolu ci suñ borom te doyuloo ko ndax loolu rek mooy li nga xam ne moo mën a moo mën a dindi wala moo mën a moo fi mën a jëlee jafe-jafe yi nga xam ne moom la doomu aadama di dund doomu aadama dafa war a delluwaay léeg-léeg ci suñ borom ngir xam ne suñ borom képp mooy ki nga xam ne moo moom moom moo am kàttanu mën a sotti soppandikoo ni ko neexee mooy ki nga xam ne itam moom képp ci lañ mën a wéeru moom képp itam mooy ki nga xam ne bu ñu bëggee mucc ci moom la ñuy dellu ci moom. loolu nag kon mu mel ni dundal ruu lu am solo la te xam nañ ne bis boobu dundalu ruu la tekki kon dundal ruu dafa doon lu ba am solo lu ma a bàyyi xel ndax loolu rek mooy tax. ba lépp loo xam ne bu bu xasee sa ruu bu si bu dee dund dara dootu la tiitloo dara dootu la jàqloo da ngay doon ku doyloo suñ borom xam ne lu fi nekk lu nekk ak lu mën a lu mën a doon génnut ab kattanam génnut ab man-manam kon nag dara loo fi wala ragal boo xasee dellu ci moom wërta am dara loo xam ne moom ngay war a tiit wërta amati bu fekkee yàgg dellu ci moom mu mel ni kon loolu moom la ñu xasida yoo bis bu xasida bi jàngal mu doon nag lu lu ñu war a bàyyi xel xam ne dëgg la sabab lu moom yàlla moo nu ko digal waaye nag ba mu nu digalee sabab lu itam xam nañ ne sabab lu dafa ay def sa kem sa kemtaay kàttan rek la waaye lay sottal wala lay mottali yàlla suñ borom képp moo ko moom moom rek moo ko man moom rek moo am sañ-sañ ba kon loolu mu doon loo xam ne bis bii nga xam ne taxawal nañ ko ngir xam bis boobee kenn ku ne la nga xam ne moo doonoon sa itte ci ay bànneexi àdduna wala loo ay lu la doon xiir ci jëm ci àdduna lépp fàtte nga ko ngir bis boobee te loola li muy tekk mooy kon dellu si waat naa ngir xam ne man mii kat sama jëmm ji am na ñaar yu ci nekk te ñaar yooyu war naa ko bàyyi xel mooy du jëmm ji kese jëmm ji li koy dundal xam nañ ko mooy jox ko mu lekk jox ko mu naan solal ko dëkkal ko loolu mooy li koy dundal waaye nag am na ruu loo xam ne moom moo koy dundal te war nañ ko bàyyi xel te loola mooy delluwaat ci suñu borom yëgaat suñu borom dundaat suñu borom mu doon loo xam ne da koy dund bu wér di ko yëg wér loolee mooy li nga xam ne moo lay mooy dundal sa loolu nag kon mooy li nga xam ne mooy yóbbal bi nga xam ne bépp bépp doomu aadama boo xam ne def nga sa bu yóbbal doyloo suñ borom wóolu ko am am am dalu xel ci moom loolu rek mooy ànd ma mën a indi dalu xel ci doomu aadama yi waaye amul leneen loo xam ne mën na ko indi ci doomu adama yi gëm suñ borom dellu ci moom xam ne moo mën a musle xam ne moo mooy fi nga xam ne mooy fi ñu war a wéeru loolu mooy li nga xam ne bu nekkee ci ñun suñ xel dana dal ndax xam nañ ne ki nga xam ne moom lañ wéeru ci moom doyloo ko jox ko suñ doyloo ko xam ne itam moo mën a musal xam nañ ne amul dara luy dox ci àdduna wala lu fiy xew te loolee génn génn kattanam wala mu génn man-manam kon nag koo ku mel noonu nag boo ko joxee sa sa sa àdduna doyloo ko ci li nga xam ne moom ngay dund sa dundinu àdduna sa xer war naa der nga xam ne amul dara loo xam ne dana mën a ñëw ci yow lu wërta mën lu wërta ñëw ci yow xam ne itam amul lenn luy ñëw ci yow ci loo xam ne moom dana ko rëcc ndax xam na lépp luy ñëw xam na lépp luy xew kon ñu delluwaat ci suñ borom bu baax a baax te xam ne loolu rek mooy li nga xam ne moonu mën a tax a mucc li nga xam ne itam mooy mën a tax suñu àdduna neex ni mu war a neexee mooy tax itam jafe yi ñu romb yépp ndax du doon luy jeexital ci ñun ndax xam nañu ne sëñ Tuubaa mi nga xam ne moo moo tër xasida yooyee waxtu wa mu koy tër gis nañ jafe-jafe yam doon dund gis nañu itam wala xam nañ bu baax jafe-jafe yam nekkee woon nga xam ne gisut kenn amut kenn ku koy jàppale waaye pas-pas bu rëy boobee ak ngëm gu rëy googee ak doyloo googee suñu borom tax na amul dara loo xam ne rëy rëy na ci kanamam amul dara loo xam ne tiitloo na ko amul dara loo xam ne yàqloo na ko te loolu mooy li nga xam ne moom la ñu war a jàngee ci bis yi nga xam ne romb na waaye warta doon loo xam ne dem naa ci rek kese lay doon ndax suñ borom képp koo xam ne defal na la dara wala romb nga fenn ba gudd rek nga romb ne diw sang barab sangam demoon naa fa wala barab sangam romb naa fa wala gis naa nangam waaye day bëgg boo gisee nangam joojee wala nga gis barab sangam boobee nga am loo ci jëli loo xam ne da lay day doon ab sa yóbbal ci yow ci sa dunduk àdduna luy jariñ lay jariñ ci àdduna ak ra loolu mooy li nga xam ne moom lañu war a jëlee kon ci bés yi muy xam ne ni ni nga xamee ni lañ amee lu ñuy ni ñuy am ni ñu amee itte ci ni ñuy dundale suñuy jëmm ni lañ war a amee itte itam ci dundal li nga xam ne mooy dundal suñu groupe te suñu rôle li koy dundal mooy nekk lu baax jéem cee jëm jéem cee jàpp jéem cee taxaw kon suñ borom mi nga xam ne mooy borom kattan te mooy boroomu man te mooy moo boroomu sañ-sañ yàlla na gën a dëgëral suñu ngëm ci moom yàlla na gën a dëgëral suñu doy suñu doyloo ci moom ngir xam na ne loolu rek mooy li nga xam ne moo nu mën a dimbale moo nu mën a jàppale moo nu mën a sottalal lépp loo xam ne subbul lañ ko wala lépp loo xam ne mi ngi nekk ci kanam loola rek moo mën a tax ba ñu mën koo jéggi te jéggi googee duñ ci ànd ak lu du jàmm ak salaam loolu kon ñi moo tax ñuy ñaan suñ borom mi nga xam ne mooy borom kattan mooy borom man yàlla na dimbale yàlla na defal Seex Mamadu Muntaxa mi nga xam ne moo fi toogal Sëriñ Tuubaa te xam na ne mel na ni doon na koo xam ne xam na ne r lu mat a bàyyi xel la lu mat lu mat di bàyyi xel la ndax gis nañ ne ba mu ñëwee son santane na wala soññee na ci wirdul maxuus loola lépp ngir bëgg a delloo si war ruu yi bu taxawalee te itam bisub sëñ Tuubaa bi ci xasida yi lim ci jóge jublu lépp mooy ruu yi gën a dundaat gën a xam kan mooy seen borom xam nan lañu war a taxawee ci moom xam lan mooy seen mooy seenu taxawaay ndax loola rek mooy tax àdduna mën a sotti waaye du leneen ndax leneen lu ne pexe doomu aadama képp la te doomu aadama ab sañ-sañam ak kattanam ak man-manam génn kattanu suñu borom ak sañ-sañam suñu borom kon yàlla na suñu borom gën a dimbale yàlla suñu borom gën a taxawu ñu ngi sa ñu ngi aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum wa li saa'iril muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim